geen bi fi nga ko teg nii baaxatul di kaatal di kaatal mm-hmm. alors moo ngi noonu euh, yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre moo xam sur YouTube moo xam sur Facebook ñoo ngi nuyuwaat encore une fois bu baax a baax alors euh, fu ñuy demee mooy kii di Adja moom moom fan yi ñoo commencé di di tiit moom parce que bitig bi nga xam ne nii moom la ibbi woon di jaay si wàllu ay parfum woog affaire yi jigéen yooyu noonu donc nee na fu mu nii bàyyi na lépp te bitig bu bees bi nga xam ne nii moom la waroon ibbi ba annoncé woon ko sax ñu bëri kontaanoon si neen da koy tëjaat. donc fonction bi bëgguñ Adja Diallo di tëj dañu bëgg à chaque fois di Adja Diallo mu jaay ay parfois yu neex comme ni koy defee. man mii rek di posé la question est-ce que du problème yi fi jaaroon temps yi si wàllu marchandise. waaw yooyu moo tax ñu découragé su loolu yëpp. moom kañ loolu la. dañ lay teg bët dañ lay xaptal dañ lay sonal ba doo tal yenn yi. ah. Mhm. yooyu dafa am. moom moom loo def mu faral Adja Diallo. Adja dama ko bëgg de. dama koo bëgg. waaye du tey dañuy wax dëgg mm-hmm. <laughs> parce que nit boo ko bëggee moo da nga ko wax li jëriñ gis nga maanaam ñoom c'est am xanaa xamoon ñoom am na ñu leen gën a am problème foofu mm-hmm. waaye duñ ay nit réseaux sociaux moo tax kenn du leen tudd am na leen gën a ami problème am na ñu leen ëpp alal mm-hmm. gis nga borom alal yi tudduñ leen am na ñu leen ëpp problème tudduñ leen parce que duñ ay nit réseaux sociaux fii nag ku fi nekk ci réseaux sociaux bi dem ko ñëw boo boo boo xewlee dara ci réseaux sociaux bi la nga am problème ci réseaux sociaux bi la wala fii lañ koy teg nii lañ koy defee parce que yaa fës. amul xalaat léegi nag moom dafa tëjam dina tijji moom la rek. Mm-hmm. ndax foog naa ku jël sa dix mille francs sax def ko fenn balaa nga koo jël di ko lakk mbaa di ko sànni di di nga xool bu baax a baax a baax a baax sa dix mille ñaq ñàkk ba nga def ak góorgóorlu ba nga def ba am ko xëy na it ba mu koy am da ko yomb wala ba mu ñëwee ca moom it dafa yomb ba tax mu bugg ko jël sànni nii waaye li ma koy conseiller mooy hmm. bu ku wax mu ba hmm. day dee léegi ah, a fat ay noppam focus maanaam Sénégal focus googu ñuy wax hmm. Sénégal dafa am noo fiy dundee Sénégal ni ñu dundee bu nit ñëwee réew réewal Mm-hmm. bu nit ñëwee sa envers toi bëgg la yàqal bu xamadee xamadeel mm-hmm. bu yaroo yarul bu la saagaa ndey saaga ko ndey ak papa mm-hmm. bu la saagaa ndey ak baay saaga ko ndey ak papa ak maam ak nijaay bu la doxatee nga day ko Sénégal saa yerman gat sa gat sa googu noonu noonu ngay dund ak nit mu mun la jox cër parce que soxor gi dafay bëri te soxor kese fi nekk nag bëgguñ ko avancer bëgguñ ko dem bu fekkee nag day déglu moom na déglu na tëj <laughs> tijjil nga liggéey kenn xamul dee fan la ak naka la ak nan lay bettee yàlla nu yéex danga ami doom am njaboot tijjil nga liggéey sa liggéey bu la kenn xoqatal bijou <laughs> je t'aime moo acca moo ngi noonu leen yu waxtaanee tey mooy ni nga xam ne fu mu toll nii moo nekk fii la nekk Sénégal si kaw ñëpp moom la ñuy waxtaanee comme ni ko wolof Njaay di waxee tamit maanaam tontu du frox waaye kii di Sidy Diop c'est la première fois ñu gis que mu wax maanaam si ton bi nga xam ne nii moom la waxee est-ce que du kàdd yi nga xam ne nii kii di Wally ko Seck keroog moom la yëkkati foofu sa baram mu di moo ko metti wala touché na ko trop trop gannaaw kii di ñàpp danseuram fecc katam ñëw si Wally Seck ne ko yow damaa bëgg oto ñu waxati leneen mu teg si ne ak Sidy Diop rek yéen samay baay waaye tontu bi nga xam ne ni nii Waly Ballago Seck moo la ko tontu mooy yow njàpp ak sa patron yëpp maay seen baay. looloo waral kii di Sidy Diop démb foofu sa euh, gannaaw mu defee ba nu benn match bi nga xamee nii moo ko doon defee benn place bu bu nekk fii moom tamit nee na kenn du baayam Omar Diop rek moom mooy baayam moom mi ko reyal ay xaram rek ko ay xaru ngénte daal di koy tudd tuddee ko Sidy Diop alors tey Waly Seck bu ne yow sama doom nga day wax lu ko neex rek mais nettali si gam si ni koy waxee nettali. ci làmmiñu borom la dàqee làmmiñu borom la dàqee nañ dem déglu maanaam kii di Sidi Diop ñëwaat en avant am na leen li nga xam ne tamit rakk ji maanaam wax na ko ñaar yëpp dañ ko déglu daal di ñëwaat si biir plateau bi. mais newu fa di leen ponse laay wala mu leen di yóbbante naan leen bu ngeen demee ngeen ne seen patron man papaam laa si dafa am yar. dafa am. may ñëw retour ci nit. Mhm. moom bu gisee nit waa yi da lay yëkkati. ay sa boppam moom fii parce que taalibe la am na fii dara jar fii. su ma la déggee Waly moom amul respect boobu ci ah, mais amul respect dama koy wax li Waly Seck def du respect parce que Waly mënut a jur Sidi bay taxaw naan ko yow ak sa patron yëpp samay doom ngeen. waaw mais loolu loolu loolu loolu. loolu dafa wax ñun ñu nga xam ni gëmuñu seen bopp man mënuñoo maase. wala nga magee ma benn deux ans wala trois ans wala cinq ans la bàyyi ma magee. mais bi mais côté musique bi sax da ci nekkul baayam côté musique bi da cee nekkul baayam xëy na da koo njëkk a way njëkk koo dugg ci musique rek mais nekkul sax baayam ci way parce que buñ ko tegoon ci cadre way dama lay wax nag dama ne buñ ko tegoon ci cadre way ñu war a way nga teg waal yi teg sii bi nga jël kudd ak bool jàpp temps ne ay ca way leen. su boobaa dinañ xam kan mooy way doo gis benn instrument de doo gis batterie doo gis piano doo gis gitaar doo gis dara utal kuddu rek jàpp temps teg na leen ay ca way leen ñu war a way su boobaa dinañ xam waykat bi dëgg moo tax encore une fois dama ne leen Sidi Diop du fiisu kenn encore une fois loolu laa leen di waxat ok ci kaw chaîne mu ni njàpp yow ak sa patron samay doom géeñ kàddu waaw waaw bon loolu façon de parler la rek je pense yow wax nga lépp bu ma juumut fi ma dooree ak fi ma egsi xam nga ne man jàmbaar laa te nag yàlla dafa dogal nii man képp ku ñëw ci man rek dama lay xool dama lay yëkkatee barki dem bi may jouer Sorano ñi jóge ci njabootam ñëw ci man dama leen a yëkkati man noonu la ma yàlla bindee taalibe Serigne Touba laa ku jóge ci moom tàbbi ci man dama lay yëkkati kanta noonu nag man du ma minimiser doomu jàmbur te man du ma fisu kenn Omar Diop mooy sama papa benn papa laa am bi ma jur jëndal ma xar ngénte ma tuddee ma di Diop kooku mooy sama papa du ma fiisu kenn sama grand frère la et c'est un gars que bien mu ngi ci yoonam te ku ne xam ne fi mu jëlee musique ak fi mu ko yóbbu je le respecte je l'aime beaucoup gis nañ joobam gis nañ li muy def rafet na trop mais suma grand frère la sama nawle artiste la man du ma fiisu kenn ndaxte patron la damaa yor sama orchestre di fay ñëpp kon boo ma fiisoo rek wala nga def dara di nga fiisoo ñii ñëpp te ñii ay kër la ñu yor te man maay seen patron ñoom donc pour tëj wax ji duma ma fisu kenn benn baay laa mooy Omar Diop. Mhm. ñu woyee ah, moo ngi noonu ngeen dégg kàddu yi nga xam ni kii di Sidi jóob yëkkati na ko kàdd gi leer na man duma ma fisu kenn benn baay laa am muy kii di Omar jóob donc waale bu na nekk sama baay dina nekk baay yi nga xam yëpp ñoo ngi sama ginnaaw te ñooñu ñëpp kër lañ joxe te mënu si nekk baayu kenn mu mel ni wax ji touché na ko dégg dégg waaw touché na ko wala touché wu ko. foog naa tontoom may na ma démb li ma la wax fii victoire ma ne ku ci nekk sa bàyyi morom nga. déedéet d'accord mooy Ousse. waaw Ousse. incha allah di nga d'accord après bu ma paree. waaw vas-y man ba ma déglu après ma daal ñëw. benn wax bu dofee nopp ya koy dégg daa war wér man su ma waxee fii la waali waxee damay naafeex damay fen xaw ma fu waali waxee. Mhm. xaw ma ndax bi waali di wax sama fils la yéen ñaar ñépp xaw ma ndax da cee jublu ñoddil ko grandeur wala da cee jublu waxin wala xaw xamoo ko xamuma ko keneen xamu ko ku ko wax da kàcc même nu waalee ko xam loolu bu ci jubloo loolu itamit daa wax ngir wax lu ko neex rek waaye li sii di wax moom it ci